Heavyweight.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 ni dañu fa doon tàggat xale yi jigéen ñi di leen jàngal nu ñuy jaayee seen bopp waay ëpp naa wax waay ci ab kër bu dëkkee tëju lañ ko doon defee fole ca Dalifort teg nañ ci loxo nag lu toll ci fukk nit ak benn ka jiite woon yëf yi tamit di dendong tegaale nañ ko loxo ñaw ñoom ñépp ñu defeere leen parquet réseau boobu nag ñi ko yoroon dañu doon liggéeyloo pointiru jigéen bu nekk bu mag ak bu ndaw as bu ne ne te it nee nañu saabu client mësaana ñëw bu waxaalee ba juba am na droit wu dugg ci biir kër gi tànn xool ba gis xale bu ko neex yóbbu ko jëfandikoo ëskay ki ñu njort nag ne mooy cerveau bi di dendong bi ñu koy auditionné nee na ci kanamu enquêteur yi moom moo doon héberger jigéen ñu bari di leen tàggat ci wàllum jaay seen mbopp waay kii ya bon sa waay ab entreprise la yoroon de ndax ne xale bu jigéen bu ci mësaana am client moom ci pam am na ci pourcentage bu muy encaissé ndax nee na moo leen logé woon doon leen dundal te it yoroon seen sécurité coow ma ne lii am na ci Sénégal Sénégal nag fii ngay gis ay jigéen yu xëy rek gàddu saak dem ba xaaju guddi ñu dellu si yenn saa sax ñu fanaan yenn saa yi ñu weekend dëkkee ko doo leen laaj ba ñu wax la ne fii la ñuy liggéeyee ba noppi dëkkee yor koppar gu takku waaye ma ne lus na waay moo tax ma ne ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax jàngalekat bi nag li mu def rëy na ne yoon da koo teg loxo ci wàllum escroquerie mu waay enseignant bi ab waay bu mu xamante loon la ne mun na ko utal ay billet avion moom ak famem ci prix bu yomb nag waa ji jox ko million millions cinq cent mille mu encaissé koppar yi ba noppi may la def waa ji mënatu koo teg gët bi ko yoon loxo nag li mu lay ci kanamu enquêteurs yi mooy li tax ba mënul woon jënd billet yi jàngoroy corona ji moo ko bloqué woon eh eh waay yomb na waay ma ne nag Sénégal léegi moom ut lay yomb na ku xëy sa jabar la dépense sax boo ko amul jiiñ ko corona moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca Bambey doy na war ab soxna lañ fa accusé ne moo fa xoj doomam bu jigéen bu ëmb ëmb six mois ba mu ñàkk bakkanam wuup pup pup pup pup pup xale bi nee ñu 19 ans la amoon mbir mi nag mu ngi amee ca commune bu Réfane ca wilaas bu ñu naan Mbaafay yëf nag nee ñu nii la demee xale bi dafa ëmb ëmb juróom benn weer xam naa rek boo demee ndey ji mere ci noonu mu xuloo ak yaayam xuloo bu tàng ci la ko yaay ji fekkee ci biir toilette yi xoj ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam suu tey mim réew moo tax boo mere ñu ne la bula la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee it nga toog tëddal ndax saytaane bari doole ci yenn xeetu doom yi fitna lañ seeni waajur moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Tambacounda doy na waar m jaawo am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent moo fa jàpp baayam bu am juróom-benn fukki at door ko dooro dooro door ba gaañ ko ëskay mi nag mu ngi xew guddi altine jëm talaata gi ñu weesu ci wilaas bu ñu naan canapé te nag li indi yëf yi xam ngeen lu moo xale bi benn bëyam ma ne ab bëyam la xaju baayam lekk mu ñaw sippi ko baay bi jàpp ko dooro dooro door ba gaañ ko waay àddinay waaja tukki walla duma sa baay kii barke romb na koy wéy yoon mujj na ko teg loxo waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax wax la xew ca mbuur doy na waar Seynabou ak Abdoulaye di ay woy dencante ñoom ñaar sëy nañu lu toll ci juróom benn weer mujj di warsee ay ma fàtt ci samay ci ginnaaw si la Seynabou woo ancien jëkkëram bi nekko ko dama ëmb ëmb ñetti weer nouvelle boobu neex lool Abdoulaye di jëkkëram ji mu tàggaloon na bu nekko ay seex laa ëmb Abdoulaye gën a teebeeg ne ko dinaa leen jël en def ci lépp li ci war <laughs> góor gu am jom de noonu lay def ndekete woo sëy na bu ëmbul jigéen a bari pexe ab la tegoon di arnaqué Abdoulaye Abdoulaye dëkkee ko yónnee xaalis Abdoulaye ci boppam nee na ba sëy na bu moo ko woo ne ko papam moo ko wax mu ñëw Kolda nee ñu teg ci ay weer sëy na bu woowaat ka ne ko am na ay doom ñaari cheikh nee mu envoyé ko frais bi comme munul woon dem Kolda ak tere tere gu ñu tere woon transport interurbain bi looloo taxoon ba munul woon a dem ngénte ji doomam Abdoulaye nee na bi mu defee ay recherche la xam ne Seynabu demul fenn ma nga mbuur di yaataa yumbe te amul doom cey mim réew waay waay waay jigéen bari pexe nee ci la ko yóbboo ci yoon ba ñu eggee tribunal ci kanamu juge bi Seynabu dafa waat ne mësta woo Abdoulaye téléphone ba mu divorcé ak moom la ko gëj ma ne lu dul dëgg du wéy laa la wax ma ne ci appel téléphonique yi ak transfert yi ko Abdoulaye doon transféré xaalis ci numéro am la Seynabu daanoo mu mujj mujj lay ne téléphone am daa réeroon waay waay jigéen a bari pexe ba ñu demee ba xam ne kii ci ay lay la taxaw la ko yoon mujjee daan ñeenti weeru kaso amande ko sept cent mille francs waaw góore waay mooy li may wax rek jigéen ñi boo leen bëggul góor bàyyi leen poosam waaye bëggoo leen góor bëgg di ropparti poosam waaye loolu mënta nekk waay góor daal boo ko bëggul bàyyi ko comme ni ko Souleymane fay di waxee jàmm ne ñooy mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje sam samedi ci yeneen xibaaru buzz